Ahmadou Bamba moo ko sanc ci atum 1888 ngir jaamu boroomam di dëkk bu sell boo xam ni mi ngi nekkee ci région bu Diourbel département bu Mbacké arrondissement bu Ndaam digganteem ak capital bu Sénégal di Dakar mi ngi toll ci ñaar téeméer yu manqué tuuti. lii gën a attiré ci dëkk bi muy jumaa ju mag ji nga xam ni moom lañ fi taxawal ci ndigalul Cheikh Ahmadou Bamba ndax ci atum 1925 ci la ñu def fondation bi ci nekkuk sëriñ bi waaye liggéey bi ñoo ngi ko door le 4 mars 1932 ci xilaaf ak sëriñ Mouhamadul Moustapha liggéey boobu di wéy ba ci xilaaf ak Cheikh Mouhamad Fadel Mbacke ci la lépp noppee ñu inauguré ko vendredi 7 juin 1963 ci teewaayu kilifay diine yu bëree bëri ci réew mi ak président de la république bi fi nekkoon ci jamono yooyu muy Léopold Sédar Senghor. jumaa ji nag ñu liggéey ko ci surface boo xam ne mu ngi tollu ci 8790 mètres carrés guddaay bi di 103 mètres bi mu ngi yaatoo juróom fukki ak ñett muy 53 mètres bi yaatoo 60 mètres jumaa ji bi muy noppi juróomi soroor moo ci nekkoon ba ci gën a mag nekk ci digg bi ñu dëppee ko lamp fall ci ginnaaw bi ci lañ ci yokkaat yeneen ñaari soroor ci soowu bi ci biir jumaa ji muy bâtiment bu mag bi lu toll ci juróomi junni ak juróom-benn téeméeri nit mën nañ faa jullee muy 5600 fidèles ci lu dul buuxante jumaa ji nag taaru loolu ci ay décoration ak lumière yu bari yu koy leeral ci biir ba ci biti am na lu toll ci téeméer ak ñaar fukki lustre am na lu toll ci ñaar fukki projecteur ak juróom-ñett yoo xam ni yu toll ci mille volts la di leeral li féetee biti jumaa ji ba ci ay projecteur yoo xam ni ñooy leeral soroor yi jumaa ji am na sonorisation bu am doole muy ñaar fukki haut yoo xam ni ñu ngi ci biir ak ci biti jumaa ji nga xam ne lu toll ci juróom-ñetti fu ñu noddee nga mën kaa dégg muur bi nga xam ni moo wër bâtiment muy jumaa ju mag ji guddaayam muy hauteur bi mu ngi toll ci 9 mètres épaisseur bi mu yaatuwaay bi toll ci benn mètre mu bokk ci jumaa yi nga xam ni moo gën a mag ci Afrique de l'Ouest muy Afrique soo jant yokk bi nga xam ni moom moo wër jumaa ji muy extension bi moom it mën naa jël lim bu takku ci ay jullit yoo xam ni dañ fiy jullee si bërëb bi nag ñu saxal fi julli juróom ak jaamu yàlla ku mat sëkk ci penku bi fi la barabu Cheikh Ahmadou Bamba nekk ak ñenn kenn ci ak njabootam muy sëriñ Mouhamadul Moustapha barabu sëriñ ba Mbacke sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Saliou Mbacke ba ci xabru sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke. wal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 ربك بمجنون